daw uti ji ndax li ñu bëgg yépp bu ñu demee man ko fa fekk ci jàmm lii tax nag euh, suñu taxawaay surtout mooy màggal gi day bari ay gox yoo xam ne ay nit ñu ab lim nit ñu bari dañ fay daje lu mel ni Aliya lu mel ni Ndindi yu bari du rekk ci boori jumaa ji maanaam dama ne nit ñi duñu mën a sax tasaaroo yu ay gox yu bari yoo xam ne non seulement nit ñi dañuy daje biir Touba waaye si yeneen gox yi ñu bari dañ fay ñëw dañ fay nekk te fu nekk ñun tam ñu war faa ne moo tax ñu fexe ba ci wàllu wér-gu-yaram quinze postes avancé mu fukki photo avancé ak juróom ak yi nga xam ne sax waa principal te sëñ bi wax leen léegi ñu war a ñëw jàpp ci liggéey bi ñooñu ñëpp day ñëw ndax nit ñi fay teewee euh, dina ko laaj dina ko dañ ko soxla lool ñi nga xam ne mën nañu indaale feebar ñi nga xam ne itam ñëw nañ fa dara dal leen fa ñaanuñu ko yàlla ñu fekk fa loo xam ne mën na leen a wàllu may leen garab garab yi dina doy incha allah waa PNA déjà def nañu commande bi docteur wax na ko léegi dina ñëw ñu mën koo teg ci poste avancé bu ne am ay garab yoo xam ne dina mën a wàllu ña fa ci biir jumaa ji aussi dañ fa teg benn euh, dispositif boo xam ne ñi nga xam ne dañoo loru urgence maanaam ñàkkul koo xam ne pare mu xol wala leneen moo ko mu daaneel duñu xaar foofu lañ koy defee premier traitement yi ba wallu ko ba benn loraanga du ci tukkee loolu pour wane ne rek ñun li ñu bëgg mooy ñun ñi nga xam ne ñooy région Diourbel rawatina administration ak waa kër sëñ Fallou ak waa kër sëñ Touba yëpp képp kuy ñëw fii nga ñëw màggal ci jàmm Euh, delluwaat ci jàmm si sa njaboot euh, bàyyi dëkk bi ci jàmm tam loolu nag ginnaaw nit ñu bari dañ fay daje mesure yëpp jël nañ ko parce que ne incha allah lépp daal di aw yoon bu dee wàllu service d'hygiène euh, déjà ñoom fexe nañ ba am produit bi ba tàmbali liggéey bi loolu dégg ngeen capitaine Fallou Sarr wax na ko moom xam nañ sawara sawarteem ak taxawaayam lépp def na ko pour dara bañ a sooxee naam naroon na am ay yéex-yéex waaye moom góor góorgóorlu na ba liggéey bi tàmbali na docteur moom tàmbali na bu yàgg te sax ren dañuy sant yàlla ndax am nañ sami sami bu jut bu Tuuba te loolu amuloon daaw nga xam ne yokkute ci digg ci diggante bi am na ba nga xam ne dina gën a maa gaan wàllu nit ñi am ay ambulance di mën a jëlee nit ñi fu ñu mën a ne loolu nekk lu bees loo xam ne alhamdulilah bi na Euh, màggalu Kazu Rajab bi tombe na loolu sami bi déjà commencé def liggéeyam loolu lépp sant yàlla li mu tombeel la ci wàllu ndox dégg nga génn ko am na forage yoo xam ne maanaam li muy génn ci ndox dafa wàññeeku moom nañ naan baisse de débit loolu nag bu ñu si jógee tey ci ngoon denc xayma seet forage yooyu naka la ñuy def ba ñuy mën a joxe ndox mu doy lu ñu ci mën a réparé réparé ko di ngeen maire joxe na euh, wane na taxawaayam pour ñu xool bu ci fi ci nekk lan moo ko téye ñu jëm jëm ko jëm ko saafara ba ci sax centre de santé bu poste de santé bu ndindi bi nga xam ne ay sareet yi duy ndox euh, te loolu xam ngeen ne ndox moom ci ku feebar ndox mu sell la la war a doon ñu xam ni koy duyee fu ñu koy duyee loolu bokk na ci paj mi waaye hôpital moom warta ñàkk ndox moo tax jël nañ dogal sax ni tey ci ngoon nañu fa yóbbu bâche ba ker ba problème bay faju di ko duy ñetti fan yu nekk amyociterne duyal leen ko maanaam loolu mooy na na faju bés ni ki tey waaw ndax tam euh, naam dañuy waajal màggal gi waaye da ci am problème yoo xam ne waa Touba si seen dundin bés bu ne dañ ko bu ñu ko mënee fajaale ci màggal gi mu doxee fa sax saafaraw alhamdulilah rabbi alamina lépp loo xam ne rek dafay dem dongal impacté dund nit ñi ba ñu mën a dund dund gu gën a ñoŋ tam suñ ko mënee bu fekkee ci màggal gi la war a jaaree tam ne ci jaaree sant yàlla. ñu am yëpp tam deeñ am màggal deeñ am euh, soxla si faju benn yoon te ñun buñ ñu sañoon aussi soxla yëpp day day faju dëgg yàlla moo xam événement am na amul ndaxte askan wi moo fi taaj ci auto ñoo fi taaj autorité yi si seen soxla la ñuy dox seen soxla la ñuy jaamoo si wàllu kaaraange aussi dégg ngeen mesures yi ñu fi jël police dina def li mu war li ko war yëpp patrouille yi fu ne ñu nekk fa di leen gis di régler circulation bi di mën a nekk ci ci ànd ak comité d'organisation bi ci cérémonie bi ñoom daan daañ ko taxawee balay ñëw ci jour bi ba bu paase ba nga xam ne du am buuxante kenn du mën a lor kenn gendarmerie waxi noppi ñuy félicité bu baax di encouragé le capitaine Wade bi nga xam ne mu ngi soog a ñëw ci région bi tombeek lii muy nekk première màggalam di ko ci ñaanal di gis taxawaayam yaakaar ne am na yaakaar ne dina liggéey liggéey boobu mucc ayib ba bu jógee ci màggal gi lépp daal di mën a yomb ci moom xam naa du yomb ba liggéey moom yombul liggéey gendarmerie yombul waaye yàlla defal ko sutura ba euh, lépp loo xam ne ay kilifaam ci gendarmerie xaar nañ ko ci moom mu doxe fa euh, yàlla may ko ci ndam ci ci liggéeyam ndax gis nañ taxawaayam ci wàllu courant xam ngeen ne Senelec taxaw na ndax tam courant du mën a ñàkk sa la ndox mi aju sa la lépp aju lu bari waaw ñoom deman provisoire yëpp dañ ko fexe ba mu féete boor dañ ko satisfaire loolu engagement boobu boo xam ne dal na xel dina am ay équipe permanent ay permanence yoo xam ne itam ñoo fay ne ci poste transformation yi fa nga xam ne bu dara amee wala coupure wala dara rek dañuy daal di gaaw gaaw saafara loolu nekk na loo xam ne lu lu lu dal xel la loo xam ne daal ku jëm ci am màggal dégg lu mel noonu sa xel dina dal bu dee nag wàllu ONAS liggéey bi dina tàmbali ñu ànd ak ak yi déjà bu ñu xaymaa am na cent voyages yoo xam ne mañ ko def pour pour daal di banque kër yi cent voyage maire dina jël 160 yi ñoom ñu jël quarante voyages yi euh, waa waa ONAS maire daal di tàmbali na maire ngi nii tàmbali na liggéey bi joxe na carburant joxe camions yi tàmbali nañ liggéey bi yaakaar naa ne loolu lépp bu ñu ko boolee ci wàllu manque bi du am benn jafe-jafe incha allah fépp foo bëgg fu ñuy yaakaar ne ay nit a nga fay daje. Euh, euh, si wàllu toilette yi dañu fexe lépp daal di daan mën a ñoŋ ba nga xam ne dañ ko am niñ ko niñ ko bëggee euh, loolu daal ci gàttal fekk na déjà wàllu matt meek yooyu yëpp bind nañu lettre yi wàllu cortége bi war a jógee Dakar aussi gendarmerie dañ fexe ba ñu am flèche pour dimbali leen wàllu daan aussi sax war nañ suñu xel dal na la pèlerin yi dundoon ba le Ah, ba xaw a nekk ci frontière bi xaw faa yàgg yàlla dimbaluñu loolu yëpp yàlla saafara na ko ba nga xam ne loo dootuñu dalati li ma mën a wax daal mooy dañ jëm ci màggal ga xel mu dal ak xol bu dal à partir de maintenant nag commencé woon nañu si liggéey ga du tey lañ ci tàmbali ba CLD bi taxee ba léegi dégg ngeen sous préfet ak préfet ànd nañ ci ci liggéey balay boo bés bii xanaa dafa fekk ne à partir d'aujourd'hui tey moom ah dootuñu dañuy mën a gën a baral tànk yi lépp lu ñuy def tam ñu gën a taxaw ba nga xam ne bés bu ñu ci àggee le 28 ndax màggal gi le 28 lañ ko lañ ko jàpp incha allah dina fekk lépp yam lépp lu ñu waroon def daal ñun ñi ñu xam ne dëgg yàlla taxaw nañu def nañ ko pour mu am taar beeg la fa war a am kaaraange geeg euh, yombal beeg dem beeg dikk beeg taxawaay bi ji war a am ñun fekk ñun am nañ taxawaay boobu. loolu daal laa bëggoon biral euh, di ko wax mbokk yi di wax sëriñ bi mu yokk ñu ñaan ba yéene yi ñu fi yéene yëpp gis ngeen ko yàlla yàlla mottali ko.